الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد بوك جلدي ني وجين تبين النمرو باتاي تي قاو قاو جامونو يي دين زياره دين فاتلي ني نيغي تي سن منبر الاحداث سن شين منبر الاحداث دي فاتلي وانتي يين ген باغا فات ابون ماي ان شاء الله ني نيو تاخو تي ay minutes yu néew rek di wax ne dafa am loo xamante ni dafa bëri léegi ci jamono ji lool lool lool te dañ koy remarqué bët bu set mooy nit ñi nga xamante ni dañuy taxaw ci doomu aadama rek taxaw ci fitu bakkanam wala ci noow bakkanam rek di ko teg naqar maanaam di ko wax lu dul dëgg wala di ko wax wax ju neexut wax ju naqadi maanaam di ko xas wala ñu koy méngaleeg lu ne te nit ñi dañ koy def léegi bila bila faayda wala wala yubaalun maanaam nit ñi dañuy def jëf yooyu te duñ sax bàyyi xel ne ñu ngi lor nit ki ñu ngi lor doomu aadama bi wala ñu ngi def jëf jooju duñ bàyyi sax xel ne nit ki ñu koy def nii kii mën naa am ay naqar yoo xamante ni dina séparé dina dina dox diggante ak moom man naqar yooyu dina tax lu bëri day tax nit ki aju ci wàllu dundam mu koy ñàkk comme par exemple comme yenn jikko yi nga xam ne nit ñu ngi koy meloo di ko def mooy di meloo di di waxal nit ñi wax yoo xamante ni wax yu du dëgg la wala ñuy jëfal nit ñi jëf yoo xamante ni dara amu ci wala ñuy sosal nit wala ñu koy dëkkal foo xamante ni dara amu ci loolu nag man dama ne il faut nit ñi arrêté taxaw di bàyyi di yàq deru seen morom jullit bi yow jullit nga bul yàq sa deru morom bul ko ŋàññi bul ko xas bul ko wax loo xamante ni sosal ko loo xamante ni bu ko keneen déggee nafsam yàqu ci moom dootul mën a xool nit ki bët bu ma ko doon njëkk a xool ndax ndax wax ju bees yuñ dégg ci moom te yàlla xam na ne wax jooju amut waxuñ kenn nag dañuy jàngale rek maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu xiir ci ñi xam lu baax rek di ko wax moo tax ñu ñëw taxaw ci di ci seetlu tey nit ñu bëri tey ñu ngi taxaw di yenn nit responsabilité boo xamante nit ki yanul responsabilité boobu ci wàllu jëf maanaam nit ki nga seq ak nit liggéey wala nga seq ak nit maanaam maanaam maanaam jëflante boo xamante ni diine moo ko lal wala jamono ngay gis koo xamante ni dina la tegal ay problèmes yoo xamante ni yow boo sañoon sax doo xamati nit ci kaw suuf wala ngay xamati nit koo xamante ni danga jokk ci moom wala ngeen di jokkalante ba seeni mbir di dem ci dagan wala loo xamante ni lu dul loolu mu ne ba tey borom xam-xam bi dafa wax ne mu ne mu ne mu bu mu jarat ngir mu nekk benn baat rek boo xamante ni baat boo xam dafa sos rek dëgg rek dal ci nit dafa nekk loo xamante ni maanaam dafay indi benn vide ci diggante nit ki ak boromam waaye ci diggante nit ki ak nit ki muy dundal parce que dina dina dina loo xamante ni ci xolam loo xamante ni bugg ko woon dina mébét lo xamanteni ci xolam waru ko woon a mébét wala mu jàpp lo xamanteni ci xolam waru ko woon jàpp ba bañ ci lo xamanteni mom dinam sax man na ci yàqu ndax gis nañ fi ñu bari ñoo xamanteni da nga gis doomu adam bo xamanteni dana bañ bërepp bu muy jaamoo yàlla rek ndax diw mo tax wala diw mo tax da nga gis doomu adam bo xam dana bañ jaar mbedd nangam rek ndax diw mo tax wala diw mo tax ndax fekk na lool muy bañ dañ ko ko defloo wala dañ ko ko jëflo wala dañ ko ko manam sànni ci deram wala dañ ko sànni ci kaw kaw ay jikkoom yoo xamante ni daanaka moom xamu ko sax waaye melowu ko wala melul noonu te loolu yëpp du indi benn résultat boo xamante ni lu dul mbañal lay indi ci diggante nit ak nit moo tax doomu aadama yi war nañu seetaat bu baax a baax seen diggante nit ñi seen diggante seen seen moroomu doomu aadama yi ndax yàlla nee na ëllëg yowmal xiyaama maanaam diggante nit ak nit mooy tàrreel bés penc waaye du diggante yàlla ak jaam yi bu doon diggante yàlla ak jaam yi rek yàlla balaa jaam ñi di dekki ba yàlla leen wax leen oxshuru oxshuru ladina uxshuru bu yàlla waxee na ne uxshuru mooy yéen ñëpp dekki leen jógee ci bàmmeel yi fekkoon na yàlla day wax loolu rek nit ñi dekki rek ñëw mu réglé leen rek ci digganteem ak moom kese ak jaamam ñi kese duñ yàgg waaye fekkee diggante nit ak nit rek mooy tax doomu aadama yi di fa yàgg mooy tax bés penc di yàgg ndax yàlla am na ak yoo xam ne du ci dugg ci diggante nit ak nit loolu bu ñu ko gisee dañ ci seetlu benn point bu ndaw rek mooy dafa am ñoo xamante ni bés bu nekk ñu ngi jëf-jëf joo xamante ni nit mën na cee mën na cee jaaree torox ñu ngi jëf joo xam nit mën na cee jaaree ñam daan dimbale te ñu yaakaar ko jaaree fa ñoom alaku nit mën na cee jëf-jëf joo xamante ni dana tayalloo nit ba du góor góorgóorlooti ci jëfi àddinaam dara wala ci jëf digganteem ak doomu aadama ndax jëf ji nga xamante dafa taxaw sa diggante sa mbokki doomu aadama jëf jooju bu lalul ci bakkan rek dana am yu bëri yoo xamante ni dana mën a sàmm jëf ji ci bés bu mën a doon ak ci waxtu bu mën a doon ak ci jëfukaay bu mën a doon na ñëpp nattee suñu bopp na yàlla dafa sàmm nit doomu aadama jox ay jikko yu rafet jikko yu kawe nag doomu aadama war naa fexe ba bum ci jéem a yàq du morom doomu adama dara fi mu nii diine ji ñu bokk rek ñun waa Sénégal nga xam ne diine ji diine ju yaatu la te ñun dañ ko xatal xatal ko xatal ko ba mënuñoo sëppandoo sippandoo maanaam mu nu mënuñoo worandoo sax worendoo waaye mu mënuñoo sax xaj màkk xataa xaj màkk sax bésu arafa sax ñun dañ ci juyoo nga xam ne kon mbir mi nekkatul diine rek waaye nekkatul lan mbir mi bakkan kese la te bakkan boobu nag nit ñi war nañoo xool bakkan bi ñu xool li naqadi bakkan bi ñu dindi ko ñu xol li neex bakkan bi tamu dagan neex yalla ñu sam ko gëna rafetal suñu digënté yi di wax na ñu ngi ñaanal ñëpp jamm di ndokkel ñëpp ci bés yi mujj yi nekk ci bés ramadan bi nga xamne moy mooy yalla di gorel nit ñi seen kawar safara wara gorel seen seen bakkan safara ñu ñaan yalla yalla boole ñu ci ñooñu di wax rek law borom xam-xam bu mag bo xon sëriñ bu baax bo xon cheikh lislam haaji ibrahima is radiallahu anhu bu yalla def cërëb safara ci mbooloo mi te mbooloo mi ñu mu ci jublu mooy jullit ñëpp te jullit ñi Sénégal ñëpp dugg nañ ci biir te ñaan googu muy ñaan boo demee ci yeneen kër yi foo dem moom nga fay fekk ñuy ñaan hada wa billahi tawfiq di leen ziyaarawaat beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah